alors euh, Fatoumata Seye Ndir euh, ñu euh, jaajëfal ko si xibaar yi nga xamante ne dëgtal na ko suñuy téléspectateur ñu ñëw si deuxième si ñeenteelu pàcc bu mi journée bi comme ni niñ ko waxee woon liñ si waxtaanee bokk na si wàllum économie bu réewum Sénégal duñ si wéet dañ si ànd ak kii di Babacar Diouf di ab taskati xibaar xelam màcc jëm si wàllum économie Babacar ñu lay. lay euh, dalal. Euh, sant di lay gërëm tamit euh, si sa teewaay si bi lépp magazine d'information comme niñ ko waxee woon ñu teewlu dossier économie bi nga xamante ne Mamou Diaby Gassama amal na ko ba kii di Mor Gassama di ab économiste moom ak Abou Wele yëkkati seen kàddu jëmee si komu réewum Sénégal ñu teewlu bi dossier. ci Sénégal gis nañ ne ñenn ci biir askan wi ñu ngi dund ab yaakaar moo di ne rek ne mën na am ab yokkute am ci koom gi fileek ay at yu néew waaye ñu gis ne ni climat économique bi demeewtu benn yoon li ko waral nag ñaari économistes yi di Abouwele ak Mour Gassama di ci tontu. waaw dëkk bi dafa neexul fi mu nekk les entrepreneurs ont des problèmes. les entreprises ont des problèmes beneen bi moom mooy la dette intérieure presque milliards qui appartient à des entreprises mais bu ñu amul du ñu investir dégg nga te quand il ne travaille pas donc il ne paye pas autant de tax parce que plus il travaille plus il paye des taxes yooyu yëpp ñu ngi ci waaw beneen bi mooy le ralentissement de l'économie sénégalaise en général ci bépp fànn nag bu kenn fàtte ne nous sommes en période d'ajustement structurel ñoo am ay problème de tension de trésorerie waaw yooyu yëpp nag boo ko seetee Ah, dafay doon climat boo xam ne c'est pas un climat propice wala favorable pour mën a euh, lever ay taxes waaw lii moo wàcce euh, moo wàññi euh, recettes yi parce que nous avons une économie boo xam ne na mu daan doxee doxeetu ko. 2019 gis na ne électoral la. Euh, avant ñuy démarrer donc fin 2018 ba début 2019 perturbation bari woon ci dëkk yi manifestation yi yooyu parce que ñu bari d'accord ñu woon ci affaire parrainage bi ak yooyu voilà ay kaw na amoon ay trouble te xam nga les investisseurs fu trouble am rek dañu préféré yëkkati seen tànk tuuti taxaw de waaw di xaar ba mbir gën a leer seen bopp pour ñu dem donc ça veut dire que euh, le fait que 2019 quand croissance bi ñu remarque un peu à la baisse c'est pas du tout étonnant croissance bi euh, normalement comme bu nekk ci année année boo xamante ni amul élection amul dara donc euh, on s'attend à une reprise des activités. bu sukkandikoo ci professeur Abou Wele nguuru ko Sénégal war na indi ab coppite ci doxalinu koom ba nga xamante ne moom lay amal fii ci moom réew teg ci sax na adopté li di croissance inclusive. il faut ñu am benn tissu industriel boo xam ne daf fay nekk il faut que ñu am ay entreprises privées yoo xam ne dañoo am doole il faut que ñu am une croissance croissance inclusive moom loo xam ne ñun ñoo ko defal suñu bopp moomal ko suñu bopp. 70 pour cent de notre produit intérieur brut moomuñu ko. waaw musiba naaru laay rek la ñuy jural. docteur Mor Kasama moom mi ngi ñaax gouvernement bi na def ay jéego ngir rek ñu mën a am ab yokkute ci recette yi ak li di croissance bi. recette recette fiscale yi moom euh, depuis quand même quelques années ñu ngi ñu ngi ciy waxtaan moom la ñu gis daal mooy ne war nañu continuer d'abord surtout di gën a élargir assiette fiscale. parce que boo xoolee secteur euh, sur informel bi doo ci am euh, euh, yëngatu yu bëri yoo xam ne dañuy koy def wante duñ contribuer duñ joxe dara donc ñooñu ñëpp war nañ mën leen quand même dina régulariser dina repérer naka dina régulariser parce que assiette fiscale bu rente énergie nga yokk nga ko rek. maanaam nit ñi seen bopp nit ñi fay sax mën na yem fii maa mu gën a néew te état ci gën a bëri de euh, ëpp doole voilà moo tax kooku moom il faut vraiment autorité gën ci góorgóorlu bu baax a baax. ñu nànk nguurug Sénégal nee nañu li mën na am croissance mondiale bi wàññeeku li mel dañ ci àddu ngir mën a justifier liy yootu réewug Sénégal di xalaat ba nga xamante ne sax économiste Abou Wele àndu ci benn yoon moom nee na bi jamono ji réew mi naka noonu sax docteur Mor Gassama nee na mën na am mu am ab coppite ci doone recettes yi ak croissance yi ak ah, nu mun tamel ñaar économistes yi maanaam ñaar ña nga xamante ne seen xam-xam dafa màcc lool ci lépp lu ñeel wàllub koom ñu ngi sàkku état mu gunge bu baax a baax entreprise privée nationale yi suñu natango Mamou Diaby euh, Gassama amal na ko euh, ñu ngi fi euh, si fàttali ak suñu natango bi di Babacar Diouf di ab taskati xibaar la màcc jëm si wàllum koom Babacar gannaaw bañ la dalalaate ñu lay laaj rek si chute bi nga xamante ne ñu ngi koy wax si lan ban ñaawteef wala ban lan la war a mën a andil suñu <coughs> koom réew. waaw xam nga dafa am benn nattukaay. nattukaay boo xam ne diiru at dangay xool ci koomu dëkk bi alal bi nga xam ne moom lañ fi liggéey naka la toll ren nga méngale ko ak la ñu amoon daaw loolu moom mooy nekk yokkute bi diggante daaw ak loolu la ñuy wax ci tubaab taux de croissance kon taux de croissance boobu maanaam day nekk benn yokkute boo xam ne jumtukaay la rek buy xayma boo nee nag ci baatu tubaab dafa am chute dafay mel ni lu daanu loo xam ne dafa jóge ci kaw daanu dafay gaaw dafay brutal dafay xaw a yaatu te fii dañoo nekk ci situation boo xam ne dañoo toog laata at mee jeex ñu ne bu koom gi tàmbalee ni mu tàmbalee bi ba muy yegg bu yeggee jàpp nañ ne yokkute Sénégal dina tollu ci nangam bu àpp bi jotee nag nga delluwaat ca la nga xam ne nekkatul app waaye dangaa xayma xayma bi joxe lu yées loola lu yées bi nag am na lu muy toll mun nga bañ a wax chute kon ci tubaab mhm. waaw mun nga bañ a wax daanu ci tubaab waaye mun nga wax ne la yaakaaroon lu ko yées la ñu am si loolu lay desandi ak yow euh, li ñu yaakaaroon jotuñu ko nga yaakaar ne kon du ab politique bu boot boo xamante ne moo tax àgguñu foofu waaw li ko mun a andi lu bëree bëri la. Mhm. waaye am na kenn euh, ku ko wax ci élément mbiru élection. Mhm. atum élection fu mu am ci àddina. Mhm. surtout nag na ci réewu Afrique yi. ndax dafay ànd ak coow dafay ànd ak euh, tàngat boo xam ne. ñi nga xam ne dañu am seen alal. dañuy moytu. yóbbu seen alal ci àpp boobu. dañuy toog kaaxeerlu xool ba xam. Euh, ñi nga xam ne dañuy féete ci syndicat yi ndax nguur guy jeex ngay laajaat leneen syndicat bu amoon soxla da koy teg ci table bi ngeen nga mun koo tontu ngir boo toogaatee wala keneen bu ñëwee donc li ñuy wax front social ci tubaab mhm. yooyu yëpp boo ko dajalee dina andi li ñuy wax ralentissement économie ndaxte ci élection présidentielle bi sax déjà balaa ñu koy waajal amoon na euh, lii di. Euh, kii euh, parité. Euh, mhm. pas parité mais parrainage autant pour moi. Ah ah. nga xamante ne parrainage boobu euh, woy politique yi surtout ma waa opposition wàcc nañ si mbedd mi yëngu-yëngal mhm. loolu tamit day dawloo investisseurs yi. day dawloo investisseur waaye même ñi fi nekk war a liggéey. Mhm. bu fekkee na nit ñi ñu ngi manifester yow ci sa buntu entreprise da tëj. donc ci waxtu yooyu dañuy am perte de chiffre d'affaires. bon suñu koom nag tollagul foo xam ne di mun a xayma. xam ne kii bi histoire bi amee manifestation yi wàññi na lii ci koomam ñun mënuñ ko xaymaa amaguñ ko mais bu nekkee ci réewu tubaab bi am na sax foo xam ne dañuy dem ba nata lañ leen di jàppale ngir seen activité bañ a daanu mais fii ba léegi loolu amat kon année électorale nett na ci lu am solo waaye nag mënoo génnee ni nga xam ne noonu la pexe yooyu lañu jël parce que nguur gu toog mooy nas ay pexe ngir mun a am résultat ba gën a baax kon ñoo leen cee génne ndax choix yi ñu defoon ñoom ñoo gën peut-être que am na choix yu ñu def ci diggante bi yoo xam ne gënuloon te ñoom jàppoon nañ ne dina leen jàppale bu baax ñoom ci seen wàllu campagne électorale mais ci wàllu koom xamoon nañ ne dina andi ay gàllankoor. ñu des si euh, présidentielle 2019 boobee ndaxte gis nañ ne bi biñ si génnee euh, lii di ministère euh, des finances dañ ko dañ ko dañoo changé ministre ya fa nekkoon est-ce que loolu tamit taxul ñu nemeeku lu ni mel si taux de croissance bi. dañoo xaaj ministère bi def ko ñaari ministère mhm. dénk ko ñaari nit. waaye man damaa jàpp na loolu ci wàllu këyit rek la war a mun a doon. c'est vrai que nag ñoom. en général boo xoolee politique yi ñu war a dawal boo leen séddalee liggéey bi day am ba léegi loo xam ne day des ci seen diggante te du leer loolu mun na indi ay gàllankoor waaye man damaa jàpp ne boo demee benn damay am ñaari ministre ministre bu ci nekk nga jox ko sas bu leer ca la mu war a liggéey gëm naa ne loolu warul mën a nekk problème. est-ce que loolu warul warul doon sax mënoon nekk benn gain ndax tey bu fekkoon ne benn nit lañ fa tegoon tey ñu indi fa ñaari nit est-ce que euh, tey jii mënuñu woon weesu li nga xamante ne nattoon nañ ko. waaw mun na nekk mais xam nga performance doomu aadama ñu nag. Mhm. parce que politique publique moom. fañ koy tëggee ak nañ koy doxalee. dafa bëri ay intervenant mhm. nekkul rek ak ay éléments yu bëri yoo xam ne mun na ñëw nag am ci euh, lu ñuy dox. mais daal li ñu mën a jàpp daal mooy ñaari ministres yooyu ñu bëri ñoom xaw nañu xeet seen liggéey. man loolu laa la ko mën a waxee. ba tax na ñenn ñi dañuy jàpp ne ñoom ñoo deful la ñu war a def ngir performance yi yokk ñoom la ñu jàpp si performance yooyu sax la ñuy dem waxee si euh, secteur privé bi est-ce que mën nga ma ñëwal euh, si rôle am. waaw secteur privé moom moom moo yor koom. gis nga li ñuy wax économie keynésienne kooku moom dafa jàpp ne bu ñu demee bi nga gis ci wàllu koom mu mel ni dafa am laxaab bu ko téye mbir yi doxatul moom def na da ngay fexe jël alal bu bëri yow nguur nga dugal ko ci koom bi day mel ni oto bi nga xam ne dafa xëy mënul tàkk ñu puus ko mu tàkk bu demee ba tàkk nguur gi day daal di rocceeku bàyyi privé bi mhm. maanaam privé moom moo war a yor économie mhm. ci réew mi dégg fii nag ci suñu réewu Afrique yi état am na fi doole lool ci wàllu koom mais boo déggee ñuy dem bay jàmbat ay jamono ñu ne yokkute bi ñuy wax ñu dunduñu ko mhm. ci suñu bool ci bëccëg bi dunduñu ko ci suñu poos dafay fekk ña liggéey loola gën caa bëri bitim réew lañu bokk kon lu ñu am ñoom dañ koy yóbbu bitim réew waaye bu fekkoon na ay euh, entreprise yu xaw a yi ak yu ndaw yi ñoom ñoo fi nag waa réew mi moom ko ñooñu di ànd liggéey bi ñoom seen koom bu yokkee rek dañuy joxe ay revenu yu gën a bëri ci population yi dañuy créer ay emploi te loolu boo ko joxee nit ñi ñoo ña nga xam ne dañ leen di dina ñu am ay soxla te dinañ am lu ñu faje seen soxla kon entreprise bi day mu yokk moom la mu doon produire pour mun a satisfaire loolu looloo tax koom di yéeg. Euh, soo xoolee sax am na si yenn euh, projet yoo xamante ne bu ay marché yoo xamante ne bu euh, ay waa bitim réew bu ñu ko gañee bu ñuy ñëw ñoom ñooy indiwaale seen marchandise ñoom ñooy indiwaale aussi main d'œuvre bi. waaw loolu loolu koomu àddina bi dañoo dem ba tënku ci li nga xam ne yow boo nee damaa bëgg defar tali. nga ne damay leb xaalis pour defar ko ka lay lebal mhm. mun na caa gàll ne boo ko le boo ma ko su ma la lebalee ay conditions lii ak lii ak lii day am mhm. même buñ ko waxul dañ koy jëfe ba nga xam ne ñoom dinañ am xaalis bu ñu yoroon foofu ñu lebal la ko mhm. dinañu jël seeni entreprise ngir ñoom ñu mun a jaay ay équipement ci suñu dëkk kon ñu wutal seeni kii ay marché mais dañu jël sax seeni nit wutal leen emploi yoo xam ne ñun mënoon nañ ko am fii ba tax na di nga gis ay projet yu mag a mag a mag mais impact bu muy am ci réew mi du bëri lool ndax ña jóge bitim réew ñoom ñoo topp alal ba ñu am amoon pour liggéey liggéey boobu nag moo tax ñuy wax ne faw ñu fexe mu am lu ñuy wax la préférence nationale faw ñu am ay champion yoo xam ne ñoom fii la ñuy nekk mais loolu nag balaa ngaa mënal sa bopp dëgg faw di nga liggéey pour mun a am li ñuy wax une mobilisation de l'épargne parce que ndax loolu ba léegi dafa mel ni waxtaane wuñ ko waaye xam naa ne ci mille 2020 bi dinañu tàmbali taw yi ña nga xam ne ñooy fay lempo xam nga ñoom ba ñu defee xayma dañoo jàpp ne ci téeméer bu nekk fukk ak juróom ñaar yaakaar na ñoom ñoo ci mooy pression mooy pression fiscale bi moom mooy li ñuy jëlee ci wàllu impôt bi mais ñoom bëgg nañ ko yóbbu bi ci téeméer bu nekk mu tollu ci fukk loolu boo ko yokkee di nga mun a yokk li euh, li ñuy am ci recette ngir mun a jàkkaarloo ak yenn investissement yi ndax loolu tam bu amul ñu mobiliser épargne nationale bi du gaaw a sotti ñu ñëw si secteur informel bi nga xamante ne moom tamit dafa jànkoonteel ay jafe-jafe hmm. waaw secteur informel moom si sa xalaat rek lan nga yaakaar ne nguurub Sénégal war na ko mën a def ba sukkali ñi si nekk Euh, yombul. Mhm. yombul parce que politique la boo xam ne depuis Abdou Diouf euh, demoon na ba créer ministère bu xam ne loolu la waroon saytu. Mhm. Euh, ba léegi mbir maa ngi fi te bu ñuy wax informel mooy ki nga xam ne day liggéey te daanaka nguur gi xamul li muy liggéey lan la. Mhm. kon dañuy xayma ñoom ne ci biir alalu réew mi ñoom andi nañ ci nangam nañ ko xayma nag boole ko waaye ba léegi taxul ñoom ñu xam. ñooña ñooy ñan ak lan la ñuy def euh, baaxoon na nag ñu fexe ñooñu ñu génne leen ca fa ñu nekk dugal leen ci lu ñuy wax économie structurée maanaam formaliser seen entreprise ba nga xam ne état dina mun a topp ñaata nit ñoo cay liggéey ñaata lañ leen di fay ak euh, ñoom seen koom ci at bi naka la toll dootul nekk rek looy xayma ni à peu ko mais loolu nekkul lu yomb ndax ñoom fa ñu nekk daanaka dañ faa làqu làqu fa ndax boo feeñee ba nguur teg la bët xam ne yaa ngi liggéey mun na laa teg impôt ak ay sas yoo xam ne ña nga jëloon ñuy liggéey dina gën a jafe mm-hmm. ndax dinañ la wax ne yow ci diir bi bu ko nit ki liggéeyee faw nga defal ko yi te yow wóoru la ndax marché bi nga am ren di nga ko am déwén wóoru la ndax te amuloo réserve yu tax nga mun a dund yenn yi mm-hmm. buñ la buggee obligé nga recruter day métti kon genre entreprise familiale la ay liggéey la yoo xam ne presque feneen da wax ne sax dañuy travailler au noir dafa laaj kon dafa laaj structuration ak accompagnement. dafa laaj nag ak surtout accompagnement. Mhm. parce que structuration ñoom ñëpp xam nañ lan mooy une entreprise structurée. Mhm. donc loolu jafewul en fait seen secteur. voilà mais ñoom. non moom kay amul structuré secteur bi dañ fay génn dem ci secteur beneen bi. Mhm. sa à dire que tey war waroon nañu toog ak bu nekk ñu xayma. ñaata ñoo jóge ci secteur informel dem ci secteur formel ak ñaata ñoo ci dund parce que am na ñoo xam ne dañuy génn fële dugg fii rek daal di tàggee seen bopp parce que mhm. lañ leen di teg moo tax ñoom ñëmuñoo ñëw te loolu faw nguur gi xoolaat ci bu baax a baax xool ba xam naka lay def ba ñoom ñu nangoo dugg te duñ leen teg fitna yoo xam ne day yàq seen des fa di continuer def ay activité loo xam ne mën na jëmale bu ñu ko defee nag ay diir après dinañ am doole boo xam ne dañ leen mën a teg yenn yi. Mhm. Euh, si sa xalaat nan lañ war a mën a def ba am économie bu euh, bu dëgër. waaw économie bu dëgër day xam nga koom moom mu ngi lalu ci li nga xam ne dañ ko am muy meññ ci réew mi munoo am koom bu dëgër bu fekkee ne loolu dañ koy jël na mu mel rek jaay ko la preuve gerte gi gis nga coow bi ci nekk. Mhm. ay nit jóge nañ fële paas seen avion nar paasal gerte gi te mun a jënde lu suñu usines yi mënul jënde loolu xel mënu koo nangu te bu fekkee ne dañoo jënd gerte gi rek déqi bàcc bees dugal ci ay kooku amoo ci dara waaye bu fekkoon ne lépp lu ñu béy fii ñu fexe ba liggéeyaat ko fi faw mu am njeexital ndax ay nit ñooy wëlbati loolu mm-hmm. te alal ba cay dugg ci réew mi lay des mm-hmm. loolu malheureusement amul kon fi ne nii ñun économie réelle boobu la ñu war a samp liggéey fa bu wér ñu fexe tamit ba ci économie numérique bii nga xam ne kenn ëppale wu ñu ci ndax mbiru xam-xam la rek ak ay pexe fi ñu jëm sax ci diir bu gàtt dina am ay benn opérateur boo xam ne day xel di lebal ñu yor table yi da ngay yor sa table ni ngay lebe crédit di nga ko leb ñu jox la loo xam ne da nga koy jënd marchandise daal di ko fay boo sàgganee banque njëriñam dootul bëri Sénégal donc yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne amuñu suñuy banque bopp aussi yoo xam ne dëgër nañ ba mun a financer développement ay banque commerciale moo fi ne te lu gën caa bëri ay filiales jóge bitim réew ñooñu dañuy toog rek am nañ position de rente ñoom wóor na leen ne li ñor dinañ ci dund ñu yem ca loola donc li ñuy coow yëpp téeméer boo jël ñaar fukk yi ñoo ci am compte bancaire kon mu euh, mobile money bii ñëw nii ñun buñ fexe woon mun nañ caa taxaw taxaw boo xam ne mun nañoo yóbbu kon maanaam économie numérique bi wëlbati lépp loo xam ne dañ ko liggéey fii ak yu ni mel war nañ koo mun a def ngir koom bi mun a sànq si kàllaamay tubaab yaa ngi xam xamle ni euh, bu ñu nee taux de croissance bu 6 pour cent du lu ndaw hmm. donc ana lan moo waral ba ñuy gis front sociale bi mu nekk en ébullition ñii di wàcc di ñaxtu euh, étudiants yi euh, enseignants yeeg euh, même waa même médecins yi tamit dañuy euh, dox doxum ñaxtu donc te pourtant yaa ngi naan 6 pour cent boobu du dara la en fait. ndax 6 pour cent bi dara la. bu fekkee da nga koy natt ci wàllu koom. waaye ñun bokkuñu ci. maanaam bokkuñu ci mooy la ca gën a bëri. ay nit ñu jóge bitim réew ay entreprise yu jóge bitim réew ñoo ko moom. ñoo ko liggéey ndegam fii lañ ko defee. loolu nag la am andi. la notion d' inclusion. inclusion ci tubaab boo ko naree jël fii mun nañ ci jël côté contraire bi dafa am benn taux de croissance maanaam benn yokkute boo xam ne dafa beddi lu gën a bëri ci réew mi ndax ñooñu ngir ñu mënoon cee bokk dañuy am ay entreprise comme li ma la doon wax di liggéey di fayeeku di contribuer kon lu fa yokku ñoom dinañ ko yëg mhm. wala bu fekkee ne ay gan la tamit nga jël la nekk ca ñoom nga jële ca ñoom ci alal bi ñu am jox ko nit ñi ci wàllu njàng wala wàllu paju wala wàllu leneen loolu par exemple moo taxoon léegi euh, foog naa Abdou Wele moo ko doon wax mm-hmm. mu ne lu toll ci juróomi téeméeri milliards dañ koy euh, may euh, ñooñu nga xam ne dañoo ñëw samp seeni entreprise di fi liggéey mm-hmm. ci wàllu impôt yu ñu waroon fay te dañ ko fayeeku muy exonération mm-hmm. mais bu fekkoon ne loolu dañ ko fayeeku jël ko yóbbu ko ci biir dëkk bi yóbbu ko ci biir njaboot bi ci liggéeyu xëy yi wala ci liggéeyu ndaw yi wala ñeneen loolu mënoon nañ jàpp ne dina baax. Babacar Diouf euh, jërëjëf waaye da ngay desandi ak ñun waaye ndaxte ci njëlbeel bi ñu ngi doon xam ne ni ñii di mareyeur yi ñoom si euh, jamono ji dañoo mer ba futu amal nañ sax euh, ñetti fanu grève ñu teewlu si ab waxtaan boo xamante ne kii di suñu naataango Fatou bintu Diouf moo ko sekk ak Jibi ñoo ñu teewlu seen waxtaan. général Djibi njaay mareyeur yu Sénégal door ab grève ñetti fan lu ko dooree tey ji tey est-ce que mën nga dellu si waat li waral boobule bankup loxo. waaw gannaaw li o dafa yaatu ndaxte bu ko xam ne surtout dafa dafa bëri problème dafa bëri problème o problème yi amee nag vraiment ñu ñu wax ak état bi ko mais PEMPOS bi ñu ko def oto mel yi oto oto cent cent tonnes yi. bi ñu ñëwee ba ci biir ci boole camion frigo yi. dañoo fayandoo pour bu nekk vingt mille francs ak wàcc jën yi. te bu ñu nee wàcc jën yi jën boo xasee wàcc da day yàqu. waaw ñun ñu nekk ay Sénégalais di fexe Sénégal fu Sénégal nekk ci biir Sénégal ñu fexe lekk jën bu baax ak temps ñu def suñu mooy bopp état jàppale ñu ci. kon bu ñu demee ba xam ne état dafa jël ay sanction yu ko teg jën bi te jën bi àttanu ko da may commencé may problème ñun commencé ay ay boru mooy maanaam ay météo bi wax ak état bi état bi ñu ngi dégg. ah ñu ne comme ñu ngi wax ci alal bu fekkee camion bi ñu xeex bu ñu ko doon mel ni gaare oto yëpp Sénégal ñu ànd ko ak mool nag vraiment mool ak ci taxawaay ma sëkk benn gaal tëmb benn marché Sénégal jaay de de réussite de cent pour cent am nañu taxawoon nag ah mais ñu garab du fa am ndax ñoom ñoo ñoo mën a mayeer yi di tax état di tax mayeer yi waaye tey jii tey ñi waxoon ne garab du am xam nañ ne ñoom war na amuñu maturité ci mayeer yi amuñu ay mayeer ndax bu ñu amul ay mayeer dañ ñëw jaay ci jaay ci marché yi mais benn marché tey ci Sénégal boo xam ne jaay na di lancer appel monsieur le président ko su fekkee bëgg na liggéey dama ak acteurs yi mais nit boo xam ne nii day fu mu jëm ko topp ko toppee état rek ah di wax ndax état bi ndax mareyeur yi loolu moom vraiment dafa jeex mooy bëgg daal état wax ak acteurs yi wax liggéeykat yi wax ak mareyeur yi xam ne nii vraiment day nekk ak acteurs yi ah dégg nga su ko defee mbir mi mën a jëm si kanam yaa ngi koy junj suñu ndorteelu question bu weesoo nouvelle taxe yi nga xam ne gàlloon nañ ko seen ndodd mbaa amul yeneen i jafe-jafe ya nga xam ne mareyeur yi ñu ngi koy jànkonteel waaw jërëjëf poisson ci la bokk ndax marchandise à poisson dafa dafa doxalin doxalin bi fi nekk y' a beaucoup de problème xaalis terre bi tey ñu ngi koy demandé mën nañu koy demandé naan la loolu rek parce que am na sànq yu bëri yoo xam ne commencé nañ ko mais bokk terre bi tey ñu ngi nii laal la conteneur yi conteneur yaa ngi ñoo leen déplacé wu am na ay problème problème comité de gestion bi yaa gën a jox gouvernement bi ma le marchandise on am comité de gestion te ñu leer xaalis xaalis marchandise à tamit dugg mais état bi dafa tax am lu kon ay problème yi bëri na boo dee marché Thiès tey dafa am ay problème ñu ngi ko leen génne joxu leen marché joxu leen dara loolu lépp nag mu nekk ay problème yoo xam ne ñun bind nañu wax nañu xam na ni bu ne yàlla dimbali ñu tey la ma wax am naa sama ay rakk yoo xam ne nii am nañu pëstef am nañu taxawaay boo ko raw pour pour ma mën a tegu ci yoon euh, waa dafa am beneen euh, boo xam ne maanaam ay mareyeur la ñu également ñoom daanaka dañoo wane seen bopp euh, démb ak tey ni ñoom duñu bokk ci bile grève ndax dafa am mbir ñu mbaaloo see seenub diggante waaw yooyu yàlla lañu waaye ñun mareyeur yi bëgg na suñu oui loolu moom leer na loolu moom doon du question ndax ku ne xam ne tey jii maire yu Sénégal yëpp ak seen loxo loolu moom état xam na ko Sénégal yi xam nañ ko kon ñooñu wax ñun xam nañ ne échec boobu tey état war na xam ne ñii euh, kii wax moom daf leen di nax ndax yooyu rek yàlla ko leeral tey ndax wax yi wax yi yàgg na dem ci état maa maay diw maay diw maay diw fekk doo doo doo doo li ngay wax maay président ma yow maay président ma yow parce que président ma yow amul solo li am solo mooy mooy li am solo mooy fekk li mbëri yi bëgg ngay acteur man boo leen boo leen président boo leen mayor simple ñu mbëri yi bëgg ñu am taxawaay yéen jàppale leen accompagner loolu la mairie yi soxla mais soxla ñu koo xam ne rek daf leen dundee day jël turu mairie di ko dundee lu am njëriñ. Euh, Djibi Ndiaye ma fàttali yaay euh, président bu collectif national des marailleurs euh, pour le développement du Sénégal rédaction baa ngi lay jaajëfal bu baax. alors Babacar gis nga Fatou Bintou Diouf ak waxtaan bi nga xamante ne sekk na ko ak Djibi Ndiaye collectif euh, euh, du président ou collectif euh, national des mareyeurs du Sénégal ñuy ñaawlu charge yi nga xamante ni rek teg nañ leen ko sa xalaat si li nu mel. waaw ñoom lay jaaykatu jën yooyu dañuy liggéey ci wàll boo xam ne dafa nekk wàll boo xam ne munoo li ngay jaay munul yàgg ci sa loxo wala di nga am ay jumtukaay yu am xarala bu mat sinon lu mun a nekk mooy maanaam jën boo koy jaay àpp bi def ci am solo lool ba tax na ki nga xam ne dafa jël eh, jën di ko yóbbu kooku loo ko taxawal ci yoon bi rek mun na nekk lu koy gaañ ba tax na te man sax ni ma dégg bu ñu xaymaa ba pare eh, li ëpp buñ ko génnee sax ñoom nee nañ amul fuñ ko denc ndax dafa am obala am fu ñu waroon mun a denc loolu teg ci tamit eh, ñoom li ñuy jàmbat mooy ñeenti junni yi nga xam ne dañ leen koy laaj ci kaw ton bu ëpp ca la nga waroon yor foofu tamit dafa am beneen firnde nag boo xam ne dafay feeñ ndax euh, ci suñu réew mi dañoo yomba jënd oto mu am ay liggéey yoo ci def ba muy sol lu ëpp la mu waroon di sol te loolu nit ñi xayma nañ jàpp ne di gën a tax suñu tali yi mënuñoon yàgg mooy di nga def ci tali bi ay milliards yu bëri waaye bu fekkee ne oto yi ci jaar la ñu wax ne moom la ñu waroon sëf sëf nañ lu ko ëpp day gën a gaawal yàqute tali boobu ba tax na gëm naa ne nguur gi waroon na ci waxtaan ak ñoom bu baax mhm. wan leen ne lii ñuy waaja def mënul ñàkk d'accord euh, kon euh, waroon na am concertation si diggante groupe euh, Sénégal ak ñii di mareyeur yi balaa ñuy teg daan yu ni mel ñu dem si ponk bu mujj si bilép magazine d'information di li yéene kay xëyee ñu ànd si ak Abdoulaye Ba dal leen ak jàmm lii di coow ñàkk déggoo doon lu feeñ ci ndorteel dialogue national bi Famara Ibrahima Sagna jiite bu ñu sukkandikoo ci Walf Quotidien mi ñu xibaar ne juboo amul ci diggante nguur gi kuje politique bi gannaaw ñeent fukki doomi aadama yi njiitu réew mi tànnaat bees dugal ci bile dialogue national te newul ci décret doon lu jaaxal lool Babacar Gaye bu PDS Makhtar Sourang bu Front de Résistance Nationale jàpp ne ak li bees a seq bile waxtaan Mamadou Diop Decroix ma fa jël kàddu ne jaadutoon ñu weel waxtaan ya bu fekkee ne kenn leeralu leen ci lu waral njiitu réew mi jël dogal tànn ñeent fukki nitam yokkaat ko ci dialogue national bi Seydou Diouf bokk ci mouvance présidentielle bi ne nañu daganal règlement intérieur bu dialogue national bi buñ ca noppee soo ci waxtaan jëlee fi taskatu xibaar yi Abdoulaye Makhtar Diop bu coalition Benno Bokk Yaakaar ne déet waaye munoo tere kenn wax ak taskatu woon na ci njiitu réew mi Macky Sall mu yokkal leen ngir ñu am lu tolloog juróom-ñetti commission sàkk woon na itamit ci njiitu mi Macky ngir parité am ci bile dialogue national maanaam ñu yokk li mu jigéen ña ca bokk bu dee opposition bi la leen soxal wax nañ ko démb ne génnub kaso Guy Marius Sagna ak ñam ca fegool daal dinañ ko yeggee Famara Ibrahima Sagna Le Quotidien gis ne mbir ya tar na lool ci bile ndorteel dialogue national opposition bi xaw nañoo gësam Famara Ibrahima Sagna gannaaw bu kujéeg bi jógee ñaxtu ne anañu waral nañu tànnoon ci ab décret ba noppi te ñu war a na tànneef geneen gu njiitu réew mi Macky Sall def jël lu tolloog ñeent fukki doomi adama dolli ko ca ay kàddoom ci le quotidien Famara Ibrahima Sagna mi jiite bile dialogue national ne lépp loo xamante ne def na ko ci bile waxtaan te awul ci yoon nañ ko ko wax bu jaree sax ñu dal ci kawam yéen a kab di sud quotidien paccaxoo ak ñàkk déggoo doon lu fës lool ci ndorteel waxtaan yi le di dialogue national ak nit ñu bees yan ci yokk te mu toll ci ñeent fukki doomi adama tax ku jëg politique bi dal di fippu ne kenn yëgalu leen joxoñ baaraamu tuuma Famara Ibrahima Sagna mi jota leeral ci biir yéen a kaab bi la muy liggéey na muy muy jaar kenn du ko ko wax leneen ci ay kàddoom ci Sud Quotidien moom Famara Ibrahima Sagna ne bile dialogue national soxlawu ci koppar soxlawu ci payoor soxlawu ci ndàmpaay te koppar ya nguur gi xaymaal gisagu ko yéen kabili ne hors sujet am na ci bile dialogue national jëm ci doxalinu Famara Ibrahima Sagna Omar Sarr njiital suqali soppi ne bu fekkee ne mbiri nii la nar a demee waxtaan dootul amati ne faw ñu toog pencoo ci jafe-jafe a di ñaawlu doxalin gi ne ana lu tax njiitu réew mi juróom-ñeen fukki doomi aadama ñoom kujee politique bi lañ ca gis bokk na ci ne ndëgg sërëx lañ leen ci lalal yéen a kaabi di neexul ba neexul waaye bile dialogue national coal robinet ci diggante nguur gee kujee politique bi Mamadou Lamine Diallo njiital tekki daal xamle ne lim bu takku ci ay koppar lañ ci dugal ne boo ko xayma bés bu jot daan ci jukki lu toll ci fukki million Famara bi Walf Quotidien googu la kujje ak kuréel ga leen tënk di FNR di front de résistance nationale maître Abdoulaye Wade ak ay ñoñam seppi nañ ci seen loxo bokkatuñ ca ajandi nañ ko gannaaw bu PDS ñaawloo xiiroog ngaayoo gi dox ci diggante Mamadou Diop Decroix ak kii di Mamadou Lamine Diallo ba ko ñaareel waa PDS ne bari na ñu féete ci kujje politique bi te di koto saay su ne ak njiitu réew mi Macky Sall dañoo dugal bopp rocci làmmeñ PDS ne ni front de résistance nationale bi di doxee doyatu leen yéenekaay bi di las ne maître Abdoulaye Wade bokkatu ca Makhtar Sourang jiite googule kuréel te boot kujje politique bi jaaxal mooy xamuñu ba tey position PDS maanaam doxalinu PDS ci bile kuréel te mosuñoo yëkkati kàddu ngir gàkkal jàmmoo gi dox ci diggante maître Abdoulaye Wade ak njiitu réew bi Macky Sall direct news di ñu yéggee scandale maanaam mbuxum nga am ca aprosi jëm ci ab marché gu toll ci benn kilomètre ak lu teg lañ ko xaymaal ci koppar toll na ci ñeenti téeméeri million waaye directeur bu aprosi bu ko nëpp nëppal yéene kaa di enquête xëy ñu yéggee coppite am ci gendarmerie nationale te ci général Tine mu jóg ngir dooleel état major bi ci liggéey gu mucc ayib yéene woon di Hissène Habré fàtte nañ ko ba ba ca cellule ga ca kaso te moo ne def wér yaramam taxatu ko demee noonu yéene kaabine ak lu ci mun a xew ëllëg mun nañ caa joxoñ réewum Sénégal yéene kaabine stade ne ñeenti gaynde yile bu ci Aliou Cissé sukkandiko mun na am ndam bokk na ci Sadio Mané Diao Baldé Keita ba ci Ismaïla Sarr ak Habib Diallo yéene kaabine Vox Populi di ñu yeggee lu tiis ne bari na la ñuy faat ay xale ci mim réew ne boo ko xaymaa ci diirug at faat nañ fi lu tolloog juróom-benn xale ci anam yu méttee métti ba ca mujj mooy xale bii di Maymuna Bari toll ci ñeenti at te ñu rendi ko xatet dal di ko sànni ci àllum kanteen ca ñaagis gendarmerie ak enquête gam ca def am na ku kuñ ci jàpp mu tàq rip ak deret jortu ne loxoom Bopp yow tamit ñu lay euh, sant di lay euh, gërëm bala ñuy yëkkati euh, jotaay bi rekk Babacar gis nga Bicoog Mballo bi ñu nemmeeku ci biir dialogue national sa xalaat ci lu nu mel. waaw man nag naka jekk moom ci diir biñ ko def ak àpp bi man gëmuma dialogue national euh, dëgg la nag ñi ñu ñaar ñi ñu xam ne jiite nañ ko muy général ñaa ak euh, Famara Ibrahima Sagna yàlla def na ñun jot nañ leen gis ñu def loo xam ne liggéey bu baax la mais ñi composé daal euh, commission yi dialogue yi dëgg-dëgg man aw ma ci aw ma ci yaakaar aw ma ci yaakaar dina ma bett ndax président moo gagné mhm. ak cinquante huit pour cent. ma yaakaar ne munoon na dem rek. bu ñu waxtaanee ci gannaaw processus électoral bi. seet lañ fay juboo moom mu dem ci doxal li tax ñu fal ko ndax moom dafa am programme bu mu andi proposé ko sénégal yi. Mhm. ci loolu lañ koy xaar. waaye yaakaaruma ne daal solution. bon mun naa am mbetteel nag. Mhm. mu am lu fa génn mais man yaakaaruma ko. yow tamit ñu lay sant di lay gërëm. jërëjëf Safia. yéen tamit euh, suñuy euh, téléspectateur ñu leen di euh, sant di leen gërëm si seen teewaay ñu sant tamit kii di oustaz Assane Diouf si coordination bi Ndeye Fatou Ndiaye ak Seydina Oumar Ba si réalisation bi Modou Fall ak Pape Samba si technique bi ñu leen di bàyyi di ngeen woy ak seen programme La Voix des Sans Voix. Algérie. Lamine. Wala Jaabi ay Ahad Dakar. eh nii Ahad. ma dama moom yàgg na de. Walfadjri ziar leen ñaanal leen sàkku bu baax ngeen di ñaanal dem bi teg kontaan